c'est celui de se faire des amis chez ses adversaires lui ju lui dirigeait la Saint-Louisienne mais ci yeneen gis nga ci équipe adverse yi daf ci amoon ay joueurs qu'il aimait ay joueurs préférés qui venaient à la maison le saluer et tout et tout alors ma grandir ci boobu ma grandir boobu atmosphère di bëgg sport malheureusement je l'ai perdu mon père est mort très jeune mon père est mort à l'âge de 44 ans je n'avais pas 10 ans à sa mort. Mais j'ai eu le temps de remarquer tout cela. Et comme Saint-Nusienne était une famille, parce que gis nga loolu la club bu démb bi euh, gënee club bu tey yi gis nga bu tey euh, dañuy toppatoo rek le membre bu jeexee jeex na. Mon père est mort très jeune, à l'âge de quarante quatre ans, mais son association n'a jamais quitté la famille. C'est tellement vrai que mon, ma grande sœur euh, qui est qui est l'aîné de mon père euh, son mari vient du club ci biir club bi de fait day nekk club bu famille son mari vient du club mon grand frère a joué dans le même club bon dafay nekk équipe bu équipe bu famille euh, tant et si bien que bon euh, j'étais déjà à l'éducation sportive sans m'en rendre compte je m'intéressais aux journaux de mon père Euh, y a de très grands footballeurs tey jii dañu may wax sa papa moo ma defaloon lii sa papa moo a defaloon lii un jour j'ai eu la surprise de ma vie euh, booba dem naa ba nekk mag un footballeur bu retraité adressé sama lettre de remerciement dafa retraité adressé ma lettre de remerciement euh, pourquoi parce que bi muy am liggéey bi sama papa moo ko fa yóbbu woon et comme mon père dafa décédé pendant qu'il lui exerçait il a eu l'élégance de m'adresser lettre bi nga xamee ni bu sama papa doon dund moom la koy adressé quand j'ai vu la lettre j'étais très très ému je l'ai si soigneusement gardée que dama ko réeral xam nga denc bu booy denc lu lu am valeur je l'ai si soigneusement gardée que lettre ba dama ko réeral bon mais comme dama bari kayit je crois que dinaa ko mën se retrouver un jour alors kon maa ngi woon déjà ci boobu éducation sportive di dem nag au stade tenez-vous bien mon père me tenait par le bras di ma yóbbu au stade après sa mort son ami le faisait et cet ami qui le faisait jouait dans l'équipe de football que lui dirigeait son ami le faisait et comme il lui arrivait d'être souvent absent de Saint-Louis daf ma recommander woon ak ce qui faisait les organisateurs alors dañ demoon ba dañ ma xàmmee woon suñ ma ñëwee rek su ma ñëwee rek ñu ne ah Petit jaw Petit Diaw parce que mon père le faisait il n'est plus de ce monde ses amis continuent à le faire alors ses ses amis yooyu moom laa la wax ni la ni la c'était vraiment des associations de familles qui ont aussi réalisé à la place du footballeur qui ont aussi réalisé des hommes parce que ñooñu daañu ànd daañu ànd ak yow en l'absence de ton père di veiller ci yow ci sa jàng liggéey mon premier directeur à Radio Saint-Louis était aussi de l'association sportive alors tu vois kon ce que je, ce que je te rappelle et celui-là c'est Papa Sinsi qui a été mon premier directeur à Radio Saint-Louis qui deviendra plus tard directeur de Radio Sénégal qui fut un ancien basketteur dans l'équipe de mon père la la Saint-Louisienne Bachir Kounte euh, qui est mon modèle dans la profession qui était comme on dit aussi euh, euh dans le milieu bien qu'appartenant à un autre euh, club mu nekkoon son club de cœur l'espoir de Saint-Louis ses amis étaient à la Saint-Louisienne et moi j'avais du plaisir su ma musaan dem le dimanche au stade euh, pendant que les gens euh, se passionnaient pour le match moi je n'avais dit que pour Ahmed Bachir Kounta euh, qui commentait les matchs tellement euh, il avait fini euh, comme on dit de me subjuguer mu nekkoon nag lu nga xamee ni en France bu nga xamee ni si c'était à refaire danaa def peut-être la même chose parce que sama enfance pratiquement moo réalisé le de Diaw d'aujourd'hui que vous connaissez bien. ci moom sax la ñuy ñëw suñu maam boobu di alxaj Bachir Kounta di ka ñaanal rek suñu borom dëkkal ko ci leer ah, ñu war la nga doy ngay doomu réew mi ñu war la sargal alors absence am lu mu war a lan la joué ci jour boobu gis nga mu sañ ma bëgg décorer il y a quelques années ma ne man daal euh, yéen may waaj décorer mais j'aurais que ngeen décorer sama devancier ce n'est pas seulement Bachir Kounta parce que xam nga dafa am une nouvelle génération de journalistes te xale yi ñu ci bare dañu fàtte ni man am na ay mag ci profession bi xale yi ñu bare dañ koy fàtte euh, il y en a peut-être ñu yaakaar ni saa a commencé par Lay Diaw non gis nga léeg-léeg musique dimanche bi bi ngay dégg ci indicatif sport bi am na ñu ni moom musique boobu dafa la niru alors que musique bi ca rajo ba laa ko fekk parce que c'était l'hymne des Jeux de l'amitié en 1963 en 1963 bi ñuy seetaan euh, les Jeux de l'amitié ici au stade Demba Diop booba temps am ñu vingt ans ñun ñoo doon xale yi à l'époque donc ñun ca rajo ba lañ ko fekk te ca rajo bañ ko fekk dañ ko fa fekk musique boobu daan ànd ak Ahmed Bachir Kounta Ablaye Niang parce que lay Niang ak Ahmed Bachir Kounta ce sont les premier proche collaborateurs de Alassane Ndiaye Alou yaa ngi dégg Alassane Ndiaye Alou kii est le père du reportage sportif parce que avant Alou li ngay dégg ñun ñu koy def le dimanche ay tubaab a ko doon def ay tubaab am naa ci turu kenn jàpp naa ko euh, parce que kooku alu alu ànd naag moom tuuti di Pierre Véran surtout nag mu nekkoon gis nga jamono gis nga tey jii ni nit ñi di toggee ci salon télévision bi tey leen ci salon bi bi su match ñëpp ci salon bi bu ñuy seetaan ñëpp ci salon bi parce que fa la télévision bi nekk mais ma fii am na jamono ju nga xam ni noonu lañ doon dégloo rajo parce que rajo sans fil amul woon transistor amul woon. rajo yi amoon rajo yu mag la espèce su bayu mi ngi ci salon bi dañ koy branché rajo bi mënul jóg fi ñu ko fi ñu ko teg espèce su bayu la mu nekk rajo rajo meuble la woon da koy branché mais rajo bi suy marché le dimanche day vide mbedd mi nit ñaa ngi ci biir kër yi di déglu reportage di déglu rajo bi nit ñaa ngi ci biir kër gi di di déglu di déglu rajo bi alors jamono jooju c' est Alou c' est Pierre Véran après Alassane Ndiaye aloo ci la lay Niang ak Bachir Kounta dugg si et au au jeu de l' amitié en 1963 pour une couverture normale des jeux ci la ñoom Bach ci la ñoom Pathé Fall Dieye euh, Garan Coulibaly je crois Magib Sène je crois ou peut-être dafa ñëw après ah peut-être Magib dafa ñëw après mais en tout cas ci la nekkoon benn vague et ci biir rajo bi déjà. Ahmed Bachir Kounta ak suñu benn oncle ci biir rajo bi bu ñuy wax Pierre Monet euh, di journaliste bu mag tamit mag ci profession bi ak parlage euh, nga xamee ni moom tamit compagnon alu woon ci biir kër gi bien que gisuñ ko mu exercer mais on le voyait dans la réalisation du programme sportif de rajo sénégalais euh, rajo Sénégal suñu papa Pierre Monet di ko di ko di ko ñaanal yàlla moom tamit alors ci boobu ambiance lañ nekkoon mag ñooñu ay Bachir Kounta dañu nekkoon ci ñun ay exemple on avait voulu leur ressembler dans le comportement dans l'habillement dans le savoir-être parce que euh, dañu daan toog di leen seetaan ci grand bi ni mu soloo ci grand bi ni mu ni mu ni mu selle ci ci extérieur bi ci wax ji de ce fait euh, même boo leen dee déglu ci rajo bi Ah, da ngay da ngay da ngay naan li ñuy wax ñu nekkoon ay modèle ndokk yàlla ba nga xamee ni bon euh, ils nous ont couvés parce que Bachir Kounta a eu euh, un militantisme sportif très prononcé parce que pendant que ñi mu moo Marcel di jouer lui c'était le secrétaire général de la Ligue de basket de Saint-Louis ana moom mi ngay bëgg ressembler un administratif bu nga xamee ni ñi muy administrer mook ñoom ñoo maase voilà xam nga moom laa wax nii euh, di diine ko def noonu ci moom mu teel mu kàllaf mu teel niru ku mag ñiy maasam ba mu accepté que dem defi administration et comme c'est quelqu'un qui aimait le basket ses amis c'était aussi des basketteurs euh, ñu nekkoon daal ay mag ñu baax euh, ba bi ñuy ba bi muy gaañu tàggoowuñu ba bi muy génn àddina tàggoowuñu tout comme ñi mu nekk nooloon ñoom Pape Racine Sy ñoom euh, euh, euh, Pathé Fall Dieye te li taxoon nekk bi di yomb profession bi boolewuñu ndar ga ñu dëkk moo ñu boole l'un dafay dëkk à côté de l'autre ngeen di tase ci koñ bi foo xamee ni xam nga boo fa demee daje fa ak ñoom di nga ñëw nekk ak côté da ngay nekk déjà a à à l'école de ces de ces inspirateurs sans que ñoom ñu yëg ko parce que xam nga xaleel mooy ràññee mag mag mi mun na ko bañ a gis xaleel mooy ràññee mag ba finalement ci lay fixé modèle je garde de cela un merveilleux souvenir à savoir Ahmed Bachir Kounta à savoir Pape Racine Sy qui a été mon premier directeur à Radio Saint-Louis et à quelqu'un d'autre qui a été aussi très influent dans ce que je suis devenu Ousmane Cissé Madamel qui a été mon directeur à Radio Kaolack, qui a été directeur de la télévision. C'est celui qui m'a dit un jour, un dimanche, et eh, Ablaye, aw ma reporter waaye kaay kaay defal ma match bi mais ma ni que mes grands mënuma loolu je ne l'ai jamais fait tu te rends compte un dimanche il me dit aw ma reporter celui qui devait venir faire le match mënu ko nous sommes déjà à Kaolack Kaolack des années 60 68 nous sommes déjà à Kaolack il me dit aw ma reporter ma ne que mais grand je n'ai jamais fait ça mu ma je t'écoute tous les baa ngi won déjà rajo kaw la mu ni ma ce que tu fais dans tes émissions sportives moom laa la demandé nga defal ma que au stade allez vas-y et ce jour-là je devais jouer au football en levée de rideau du match que j'ai fini par par couvrir <laughs> voilà et il me dit ndeysaan j'ai retenu ses propos c'était un visionnaire il me dit Ablaye ce que je t'ai fait faire aujourd'hui tu pourrais le faire le reste de la vie. Parce que tu es ici chez moi à la radio, je chapeaute tous les programmes, je vous surveille, même su fekkee ni rendre leen ci compte euh, euh, li ma gis nga koy def li ma lay def loo tey mën nga ko def le reste de ta vie. Tu es encore passionné de football, mais ce qui est sûr moo di tu ne seras pas footballeur à alors que ce que je te fais faire tu tu peux le faire à vie celui-là c'est Ousmane Cissé Madamel qui a qui m'a marqué aussi autrement en me plongeant dans le reporter euh, le reportage sportif très tôt il a cru en moi et aujourd'hui bon mën naa ni euh, c'est aussi quelqu'un bu nga xamee ni mi ngay bëgg nuru dans ce heureusement qu'il était un produit de la rajo moom tamit bon c'était un visionnaire moom la wax ni Ousmane Cissé Madamel était aussi un visionnaire Euh, ñu ngi toujours ak suñu référence di ko découvrir rek léegi ñu lay laaj euh, tonton Ablaye gis nañ suñu milieu bi tey ñu bëri surtout reportage yu bëri jaaruñu ci formation journalisme tey suñu papa dafa def formation ba pare doogu dugg ci li nga xamante moo di métier bi. waaw xam nga li ko def loolu yàgg na fi ah xam nga pourquoi ma lay wax yàgg na fi dama lay jox exemple est-ce que xam nga. la première génération de journalistes, la première génération de journalistes sortis d'une école de formation est seulement de 1972. 1972 la université jëkk produire ñun ñi journaliste la ñu formé au CESTI, Centre des études euh, scientifique et euh, technologique de l'information CESTI 1972 mais ma fille en 1972 le journalisme était déjà vieux au Sénégal c'est en 72 que la première génération est sortie et le journalisme était vieux d'où sortaient les premiers journalistes ñu ci bare de l'enseignement lañ doon jóge ay ba ci à commencer par Alou a commencé par Alain Ndao Alain Ndao l'a remplacé un jour à Kaolack alors qu'il devait faire le reportage à commencer par euh, euh, Pathé Fall ay enseignant la ñu woon parce que xam nga je disais à quelqu'un un enseignant est à mi-distance des autres professions parce que kuy jàngale après mën na facilement day jàngiwaat pour def leneen parce que jàngi sax moo gën a yomb jàngale <laughs> jàngi moo gën a yomb jàngale moo tax finalement pour ñu passer feneen dafay nekk lu lu yomb alors ah, yàgg na fi mais il faut les former il faut les former euh, je suis allé à Paris en 85 ci stage wu recyclage parce que déjà comme ñu ngi doon exercer pour journalisme anecdote bi ma lay raconter un jour je sors des cours avec mon professeur à Paris ñoo daan bokk direction bi ñuy jëlee métro ce jour-là je prends une autre direction mu ne ma mais où tu vas parce que d'habitude on prend la même bouche de métro je lui dis euh, euh, exceptionnellement j'ai à regarder un match de football au Parc des Princes je vais au Parc des Princes je vais regarder Paris Saint-Germain Toulouse mu ni mu daal di taxaw ci trottoir bi ñu àndoon mu ni mu tu aimes le football Abdoulaye ma ne ko je vais une confidence je suis les cours depuis le début euh, du stage mais je vous avoue que ce que vous me faites faire à l'école depuis le début des cours je n'y touche pas chez moi mu ni ma quoi ma ne que ma présence à Radio Sénégal est essentiellement sportive je suis le chef du desk sport de Radio Sénégal je fais le sport tous les jours, toute la semaine, tout le mois et toute l'année. Il était étonné de me voir tremper dans un, euh, dans un stage de formation de journaliste où le tronc euh, est commun. Vous faites tronc commun. Il y a une def. Après, il Il me dit passe à mon bureau demain. Ma bureau explique quoi. Et il me dit mais tu sais que tu nous pousses à changer de fusil d'épaule. Désormais, je me rends contre qu'il nous faut aussi tendre vers la spécialisation des étudiants, parce qu'il ne sert à rien de perdre du temps sur des étudiants euh, pendant euh, de longues semaines, euh, qui, une fois arrivés chez eux, euh, quittent ce pour lequel ils étaient à, à, à ce stage. Tu, loolu laa ko la la la bàyyee le CFPJ à Paris xaw ma nag après ndax tendre nañu ci loolu euh, c'est rappeler